Ya Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakaatuhu téléspectateurs yu ni seetaan ci Bantamba TV ak internautes yi nga xamni ñi ngi ñuy baye xel sa su ne ci chaîne bi di Ken bugul TV fu way mëna nek rek fekkati na la fa tàllal la samay yoxo di la ñaanal jamm. Delu ci watna ci jano gi jano janok doomi borom bammel bi ken bugul bu cheikh mohammedine mustafa si al mursid ma fatali len ni jamono yi mi ngi ci promotion manam li ko dalé ci consultation ba ci ndabi tangati ba garab gu mu mën a doon bu serigne mustafa si daf ci def ak woyefal len dongu dal mo bokul ci promotion yi te du ci masa bok muy jaara or yi ndax ya ca aju ak yamu lambo dégg ngeen ko ci émission bi nu weesu tey nag téléspectateur ak internet yi dama indi benn jafe-jafe bu doy waar bu nga xam ni am na ay nit yu koy dund ci seen famille ci sa entreprise ba ca gox ba nga dëkk kon nag ñu taaxirlu mën nuyoog kenn bëggul bu sëriñ Moustapha si mu nuyoog askan wi sëriñ bi nuyu naa la sëriñ bi maa ngi lay nuyu hmm. di la ziara di la ñaanal suba ak jamm ci katan suma borom jërëjëf mu ngok yow itam ñi ngi lay ñaanal jamm ju sax dak point bima indi tay moy li wolof di tuddé xaptal xaptal nit ba lepp lu muy defati du ci ànd ak sago waaye bo ñu don faram faccel baatu xaptal lan nga ñuy wax waa xam nga nit mom day sedd xëy suba tàng ci sedd na kenn du ko tuddee dañ koo xabtal ci tàng ba def lim warul def moom la ñu àbbu baatu xabtal taftal ci kawam waaye ci biir xabtal yi aspect yi bokkuñu hmm. ndax am na ñoo xam ne mën nañoo nekk ci bërëbu liggéeyukaay mm-hmm. ñu dog seeni diggante ak seeni patron boo déggee dog muy dëddale mm-hmm. ci biir dëddale boobu am na aspect boo xam ne nit ki patron da koy won ginnaaw mm-hmm. beneen aspect bi maanaam jëfinam dootul méngoo ak nam daan jëfee ñu won na la kii xattal nañ xelam ba lam daan def du moyu ni ko mi ngi def leneen bokkul ak ki nga xam ne mi ngi nekkal waajuram amal ko njariñ lool ñu jël ay waajuram xaptal seen kaw ba lu leen mën a defal tamit duñ ko gisati moom mu jàppee ne man defuma kenn dara kon kenn waruma def dara am noo xam ne dala nekk ci biir néegu sëy ñu dog diggante bi dog boo déggee mooy defaat separation ci diggante bi aspect bii doon xabtal beneen aspect bi nekk li soxna bi jëf jëfati dootu la satisfaire ati manam kontrol ba rek yow nga gisati nit timit man na nek kilifa ci bir entreprise di def dog ak sa meilleur employé def séparation bo xamné ni la ci amal do la leen djublu soxna bi moom li mu bëgg mooy récupérer la moom ci loxoom ba moom li mu wax ngay def waaye dootoo déglooti conseil yi la yi la employé amal njariñ di la jox ba tey tamit nit dana jël ngàndaay xeetu arme blanc yi moo xam muy paaka wala muy jaasi wala muy ileer wala muy weñ wala loo loo xam mën na lor nit tàqali ko sagoom gaañ ci gor te du ko yëg après programme bi lay yëg ne am na xew nit timit danañ ko xaptal génne ko kër ndeyam ak kër baayam xaptal boobu nekk xaptal pilis naawtal léegi nga abu ñaari tal naawtal hmm. xaptal hmm. léegi lu seen différence ah, mooy ñaari nuun biñ jël ak xaaf bi mhm. dafa am fuñ cosaanoo ndax boo dindee xaaf bi benn tomb cosaan ba xaafu benn tomb mhm. xaafu cosaan benn tomb la xaafu lu xool xarabiya bi moo am ñaari tomb mhm. léegi boo jëlee nawtal jël nuun gi teg xaaf lay nekk léegi buñ la naawtalee yow entreprise bi nga nekk sa tànk bu mu fa tegati wala dëkk bi nga nekk na nga fa génn wala kër gi nga fa nekk di nga fa génn yow dootoo comprendre li xewati ki ci bitti moo lay xamal ne yow am na la xew hmm. mais yow nekkatuloo hmm. moment boobu nag yow mi mu dal dootoo neex a comprendre hmm. ndax dañ lay jàppee jëfu réewane u jëf joo xam ne moo ko tey ñi jàpp ne dafa bew alal jee bari ñi jàpp ne xaj na bi mu toogee ci wërsëg faaliwul kenn fekk or que mystiquement feresu nañ la mhm. yii nag nit lay dal du dal fas du dal mala mhm. waaw nit bi mu dal ah nit ñi moom moo koy def rek mhm. après tamit nit ñi moom moo koy war a dindi waaye ci kàttanu yàlla am na beneen aspect boo bokku ci xabtal Hmm. mooy nit ak sagari njaamam maanaam am na beneen xabtal boo xam ne nit ci boppam hmm. rab ni moom moo koy xabtal maanaam ni nit ñi amee ay xeet loolu hmm. la jinne yi amee ay xeet am ci xeet jinne yi ñoo xam ne joxe alal rek mooy seen farata am ñoo xam ne aar la protéger rek mooy seen alal mooy seen farata am ñoo xam ne seen mission mooy sa loxo bi lu ci toog ñu ëf ko comme ngelaw mu jàll am na ñoo xam ne seen mission mooy kër gi doom du fi juddu am ñoo xam ne seen mission mooy kër gi ku baax du fi tekki am ñoo xam seen mission mooy gox bi ñi fi teg ndawal ñoom ñoo koy composé mais du génne nombre de personnes bii am ñoo xam ne seen farata mooy kër ñu baax ñëpp fa la ñuy concurrence mooy la góor ga waxoon ne Iblis. soxlawul dem boîte de nuit ndax gagné na ko ba noppi mais jàkka moo ko ñor parce que Iblis buñ ko fekkee boîte de nuit lu ñu koy laaj parce que gagné na ko ba noppi ni waaw moom kay xanaa jàkka ja dañ koy fekk laaj ko loo fi def te pour mu am jàmm faw imaam yi ak naam yi concurrence ñaata projet nga dégg ci àdduna bi ci concurrence wàllu wàllu wàllu jiite juma wala wàllu noddu wala caabi wala keesu jàkka ji waaw bu Iblis amee accès ba ca biir jàkk ja xanaa ko kon kër yi tawuñu ko waaw mais xafaar yi du sayaatin yooyu mais am nañ ay supérieur ñoom ñooy xëy jox leen ay directive ne leen journée tey ku nekk jébbal ma seen rapport semaine seen biir am na semaine boo xam ne ñëpp dana dajee moo tax mag ñi di la tere ne àllarba warul tukki parce que am na ci heure yoo xam ne ñoom seen heure compte rendu la buñ ci war a dajee ku nekk da nga wax ne semaine bii këpp naa ñaata oto man kii na semaine bii xabtal naa ñaata nit ñu jot gàllankoor kii na semaine bii ñaata ndiw sàngam tuur naa seeni ëmb kii na semaine bi diw sàngam ak diw sàngam fexe naa ba projet yi amoon yëpp gàllankoor naa ko mu taxawee yaakaar bu tas kii na semaine bi diw sàngam ak diw sàngam xeex naa jamante xeexante rayante gaañante ba dara tuur ba bakkan wadd na seen supérieur yi def ay nomination seen biir commencé lañ jay yow yaa doole kii yaa ëpp njariñ kii ah bu ko defee keeti li comme daw tey diw moo am nomination bii suba dinaa ko am manit moom mu ñoom muy seen aspect mais ñoom it seen biir aspect bugguñu gis nitu sagari njaam bu am ruuxaan di len upp doole ndax bu dajé ak ñom gàtta gatt rek moy tew waaw xex bu metti lool léegi ci biir xex bobu nak ci yàlla sarax mu yelu sagari njaamam parfois man na pente perte contre mom ligne bu nekkon manam kuy xex li ma bëgg wax manam boy amna bo nekk ci lamb amna na moment yooyu toll man nga encaissé coup yo xamne sa coach ko jaxal lool lu tax nga jël coup bi parce que bi mu lay préparé yépp maanaam lii yépp jàngal na la ko mais bi nga encaissé coup jaaxle nga mais yow mi war a fas yéene jàkkaarloog ñoom muy côté xafaar yi di ak côté nit ñi te yow ngay nit ñi ñoom parfois nga perte ligne boo xam ne ne ko fa woon léegi nag kooku parfois mën na yëngal gësëm ba mu tàng mais loolu du xabtal parce que ñi koy accompagner ñoo def ñoo déplacé wu ne ci xeex te ferñeent yi moom faaw mu di ko encaissé boobu beneen aspect la te yii yëpp nag mu ngi ci àdduna bi te ñoom da ngay teg sa boros Adam ñu jël borosu comme yow sa soxna tegal la kudd sa kaw añ ñu ñuy jël kudd gi mar ko dem seen bàkku fa ñu tegal la soow nga war a naan ñu ñëw bën ubbi ko naan comme yow teg fa ñu laal la sa laal nga war a dem tëdd ñu njëkk la faa jiitu jëm tëdd fa nga war a xëy dem sa bureau ñoo lay see jiitu sa chaise wala sa kaw oto ba kon luy njariñu rabbi inni a'udhu bika min hamasaati sayaatin a'udhu bika rabbi kan yahduruni bi rabbi inni a'udhu bika hmm. kan lay wax ak a'udhu billahi min seytaani rajim parce que coalition lañ motax tax léegi aspect yi bu fekke àgguloo ci aspect mana xam ñom sen puissance ak sen faiblesse donc da fay compliquer ci yow mais pour tënkal la mooy xabtal bi nit di def moroomu nitam ak bi jinne di def nit bokkuñu te yii yëpp rek tey mi ci kaw penc mi moo tax ma wax la la fois passée ne la dee gi am jaaduwul mooy li Seydina Cheikh waxoon parce que ma la électoral buy ñëw candidat yëpp ku nekk da nga dem uti ay panneau de pub waaw lu ñu ciy jublu. pour sen image am visibilité hmm. waaw ku ne fa nga xam da nga dem sangu jifa pour say rawahan ak say rab yi don nelaw gëna am puissance boo ko li ci google du joxat lako moy li la sëriñ doli wat hmm. pour ñu wara dox ci xelu jaamu yalla yi pour ñom ñu uysi la wa léegi ñooñu est ce que après électoral hmm. delloo nga leen fa jógee won ñi ñi ci talib bi ñi ci toilette bi ñi ngi ci biir ëtt bi ñi ngi ci biir néegi fi lëndëm ñi ngi ci mbedd yi léegi bu seen waxtu sarax jotee te amuñu ko ñoom it dañuy xabtalu soit ñu fàdd jur kër gi amul jur ñu fàdd nit mag ñi di la wax nag yar jur ci kër loolu mooy njariñ gi parce que bëri na luy war a wàcc ci yow parfois ci mala bi lay wàcc non nga yorati auto, bëri lu wara wacc ci yow parfois wacc ci auto bi nga man tay xaw luma dal semaine bi dama bëri pan pan trop fekk pan pan yow moy sax càngat ndax boobu mu leen xew mo tax bëri na lo xam dana dal nit fekk sant yalla la sànni ma bàyyi ma doxal jërëjëf kon nak yeen ñi suivre gis ngeen bu serigne Moustapha si leeral yi mu indi ci baat bobu di xaptal wolof dina koy faral di wax waye bes ni ke tay gën na tudd na sax yeneeni baat ci biir lu ci melni nawtal wala dëddale bu ci nek itam indi na ci ay explication yu leer waye li ma ci say wax moy bu ko nit defé moroomu nitam rek intérêt dafa juddu te moy am fo bëgg nit jublu fa té fi lek mi ngi sagom du ko def nga defi pexé ba mu tagok sagom daldi xaptalu ci yu bari fofu sax lay ñëwé manam ci ki mu dalagul nga xamni mi ngi andak sagom ndax am man nañu ko protéger ba nit du ko mëna xaptal ci dara ndax ko dalagut man la protéger ba lolou du xew hmm. yoy ke du yoy ke du laaj suñu mission ñun ci kaw suuf lan la waxa gantax mu nangul la lay waxa xeer yalla sarax mu nangul la la hmm. waxa ak mu demande yi ngay soxla nga composé ko pour mu d'accord hmm. waaw fekke ke suñ mission mënu ñoo protéger tul loolu jaratu ko ñaata yon nga dégg man la atum ren liñ ci lepp lépp tabaxoon na juma ki jakka wa da nga yaakaar nit dëgg mo ko doon def hmm am na ñoo xam ne mënuñu mënuñu xeex ak nit faaw ñu dem def coalition ay ruhan muy rawhan jéggi nañ jinné pour ñu leen xalé bële tëdd ci sax ba teewaawoon fexal na fek fukki fan ngeen détruire ko mu jël mu jógee fi wax naa ni man la wax d'accord waye bu ñëw ba ligne territoire bi na xam du xalé bu ne li songu li wax xam naa ko de wala nga tollu foo xam yow doto amate nit ñi xex déedéet borom ruuxaan yeeg borom ninki nanké borom jalañ nga am ak affaire léegi parce que nit ñëmetul ñëwati légui mais coalition bi ñu yonni ñoom nga fas yéene jàkkaarloog ñoom léegi nag waaw loolu su fekkee amuloo protection ba léegi da nga toog fi di wax ah? ñaata ndaw nga doon dégg fi ñu doon wax comme man ana ñu tey ñii niwi nan ñii sànku nan ñii seen mbokk yuuxoo nan leen ñi kenn xamu ci luñ nekkati waaye ki leen të mooy ki yaay Fatima meññ te la ma leen waxoon sa laa taxaw ba léegi dem leen ba Inde ba Grèce du ngeen bind lu jàpp ci kàttanu suma borom parce que su ma amul woon protection bu doy wala yoruma sagara ñaam yu doy mais sañu maa taxaw di ko wax caaxaan baaxul mm-hmm. moo tax nit ki protéger ba yooyu mucc ci moom mën na nekk yooyu ay ligne la yooyu jaar di dem maanaam mënul nekk juddu tey màgg tey man laataa may dugg ci faj yaay préparé ma juróom-ñeenti at yu mu tëjul benn ah te maa ngi ci foire yi maa ngi ci yi coow yi bari lool mu isolé ma rek ndeke moom mi ngi ci ay kooram koor yi mu di ko woor te du lekk sax lu am ruux luy dund bu jant langee rek mu jël fooneem def ci suukar jàll ci leneen jant langee mu jël sombeem def ci suukar jàll ci leneen ndeke moom tu ak nit ruuxaani lay wax ci ngal la ëllëg même bu ma dëddoo mission bii. waye sarax len ma ci alayhi lahu bi akmil hakimin ji ndax dana jéggi ci khalima kadi bindikat yi waye borom ruhani ñu juk jóg mo kon na suba ba fa sa yakfikumullaahu wa samiihul aliim voilà sànni ma bàyyi ma doxal. mu ngok jaajeen jef yeen ñi suivre kenn bëggul bu Serigne mustafa si mo xam ban tamba TV nga wala internet yi ñuy suivre ci bugul teve. TV Serigne bi dafa bari ay baat yu nga xamni min nañu ko lool ci penc mi lu ci mel ni baat bi nuy waxtaane tey di xabtal ndeke li ci nekk ci biir yépp ñu bari xamuñu ko moom daal boo amee loo miinul ci nit rek nga ni dafa xabtalu ndeke sax gën naa yaatu comme ni nga ko expliqué ci bi nga xam nit moo koy def romu nitam ak bi nga xam ni itam leneen lu nit moo koy def moo xam rawxaan yi nga tudd la euh, àndandoo yi rab wala jinne lu ci ne faram fàcce nga ko ba mu leer allah léegi nak ma ñew nak ci ki nga xamni ni dañ ko xaptal ba nopi mom dal taqalikoo na ak sagom koku serigne bi ndax man nga ci dara baatu dara moy lan baatu dara oh ah xana nga ndax kenn duggul man na ci mom dara ci cirque la bokku bokale la parce que man mënuma ci ni dara ni jéggul ko yàlla rek moo mën ci nit dara ndax moo sàkk moo bind te fa muy defaree àgguma fa mhm. kon kay mënu ma ci nit dara mais li ma sarax mhm. ak yoon yi ma jaarale su ma fa jaaree ci moom lay abbu baatu dara teg ci kaw taabal ji mais baat boobu may abbu moo indi sàkkara njaam yi léegi bu la xasee abal ba noppi fexeel ba yoon bi nga war a jaar nga jaarte rek ku la abal këram ne la bëgguma fi lii bëgguma fi lii mhm. soo ko refee amul droit nangu këram mais bu fekkee condition yim la wax ak yow respecté nga ko man ngeen bañ a coowoo hmm. moo tax mën naa bañ a mën ci nit dara waaye yàlla sarax na ma sagari njaam yi tax ma mën ci nit soo baa la ma la war moo jaarale ci numéro téléphone yi rek la waxoon démb génnuma ci mooy aw ma benn numéro téléphone bu dul ñett yooyu noonu ñaar benn adresse la amuy table te waawoon ci laay joxe garab ci laay sàkkee pexe ci laay tegee jàngoro yi ñett mooy jaayuma garab ci mbedd ñeent mooy neexaluma nit pour nga gëmma ma yàlla rek la war a gëm mais li ma yàlla sarax laay teg ci kaw taabul yi ki mu doy bienvenue boo ma bàyyi la ñaari message vocal du ma ko lire bu ma bàyyi la ñetti message vocal su ma ñëwee dama lay bloqué ñaari whatsapp yi ci des bu la ci neexee bu ci neex woote ci bu dee 502 bàyyil ma benn message vocal su ma ñëwee jaara tontu bu dee urgence wooteel ci numéro téléphone yi waaw yooyu kay xanaa leer na parce que tëgg tama ak wokkatu mënuñu ànd donc man awma temps bu bari parfois man nga may woo fekk maa ngi jàpp loo xam ne ni gën man ma yàqal li ma doon liggéey. mu boo hésité benn vocal liiruma la bàyyi ma su ma ñëwee naa la tontu bu compliqué ñaari whatsapp yi donc bépp jàngoro bu dul damm damm li ma ci yàlla sarax dinaa ko partage ak yow xam nga damay dégg sama mbokk mi barki dem mu ne ma dama faj 28 ans mu may limal réew yi dem ci àdduna bi yëpp waaye ne ma jàngoroy neer. laa musul daje ku ne ma lii mooy xam-xamam. waaw. ma ne ko gis nga mala yi yàlla dogal ñu judd ba noppi seen doom génn àdduna. mu ban ma ne ko fas bu juree doom. ba doom ji matut génn àdduna. mu ne waaw ma ne ko mooy garabu neer. ma ne ko bu dee xar garabu neer la. bu dee bëy garabu neer la. mais na judd na juru ba na xat na judd ba nopi te indaalewul bakkan matul bu mu non koy defé ma ne ko da koy jël boole koog sàngam ak sangam ak sàngam jëndee ko garab sangam ak sangam sangam ndax sirit ci ndigal lay dox da bakkan bi li tax matul ci ndigal la ñëwé mu ne ma kon joxaan ma garabu cancer wala ko bari na ñuy ñi liggéey garabu cancer yu ci jeex ma ne ko te pourtant am na ci biir ayatal kursi benn es xuruf yoo xam ne boo ko composé garab bi nga koy jëndee ci was wasoor moo ci gën a gaaw mo hmm. was wasoor bayre laa ci xam ne ma ne ko waaw xob bi mooy liggéey ci bayre parce que boo wassee di sànni hmm. li tax ñun la bu dee bayre jëlal xob yi jaaxaan rek parce que da ngaa bëgg a wuti hmm. mais yéeg yi gà yi dëpp gàntal li seen njëriñam mënuma xaw ma ko de ma ne ko am nañ farata parce que ndigal leen tax ñu gàntal ñu dëpp di mu ne man de mbay waaru naa ma ne ko waaruloo ma ne ko baatu wala ya uddu hifsuhuma rek ngay jëfandikoo lu tax muy waaw lamara yaa gi yaa la wala ya uddu lu tax waaw gi am tikkante ci kaw ma ne ci biir alxuraan nga xool waaw yi am tikkante ci kaw waxuma téere xara araab yi di téere cosaan moo tax may wax hmm. waaw gi am tikkante ci kaw lan moo fi njëriñam deel gi ñëw xesuhuma wa waaw am nga ci garab bi ma ne ko am naa ci kay <laughs> ma tibb may ko hmm. mu dem may benn sëre bu doon def jalis def 4 jours mu garab bi nga ma joxoon laa bëgg nga dolli waat ma ci. gis na njëriñ li. ma ne ko lu tax. Ah. mu ne que man dafa bëri maladie yu ma doon yëg yoo xam ne sama yaram. ak sama soxna ak suma benn kilifa. dama yëg ne semaine yi ni mu commencé dox dafa ma jaaxal. Mm-hmm. ma ne ko garab ci ndigalu yàlla lay dox. man demuma marché jënd garab di indi. Mm-hmm. la ma la waxoon fii ne la boo wëree Afrique mille personnes yi dàq gën a xarañ ci li ñuy def cinq yi à la laa ci nekk te ñi ci gën a néewi at si lay bokk. waaye sañ naa teg ci kaw taaba ji loo xam ne ñoom duñu am argument yu ñu koy wàccee waaw loolu yàlla lay soob léegi kooku ndax mën naa yem Cheikh Omar wala Moustapha Ndiaye <laughs> ndax li koy alimenté jugewul ci yow feneen lay jugee di ñëw. waaw mu ne ma man de premier jour bi ma njëkkee ñëw damaa jaaxle ma ne ko ci lan ma ki ma boole yow ma so dama rek nga ne ko diw moo ma yónni ci yaw mu utal naa la rendez-vous ma ñëw toog ab biir nga ñëw fekk maa ngi ko recevoir ci biti maa ngi sol lokos sol sama comme sama tubay dof yi rek <laughs> waaw blouson solu ma mbaxana takku ma fee takku ma dara ma ne ko sëriñ na nga def mu ne maa ngi fi ma ne ko bismillah mbokki fan mu mbokki bërëb sàngam lu doon soxla yi mu noo sa papa laa soxla waaw <laughs> ah, mën a tekk rek bërëb yooyu mën a gaaw góor dafa génn nag mais man la fi bàyyi woon mu ma ah man de moom laa soxla woon de kon doo ma jox numéro téléphone am <coughs> ah mu ma daa xaw sori de ndax nekkul Sénégal mu ci kañ la war mëna ñëw man ah wax deug yalla waxuma na kañ la wara ñëw de man dal bamay dem neena ma dal togal xaar man ku ñëw wax ak mom ma japp rek na amut bu dé soxla la rek lim fi bayyi doyna mu wax deug yalla wax nga deug de way wax deug yalla man duma ma jëflante ak kon goor gi baal maax di jog dank ubil ko buntu bi ko bismillah mi génn dajak ci buntu kër gi ci escalier yi ahmad bu mag te moo ko yéegaloon mu ne ko yaa ngi dem mu ne ko maa ngi dem parce que sa pap dafa sa maam dafa génn xanaa kooku nag sama ban maam mu ne ko kenn bëggul mu ko sama pap la de mu ne ko anu daa nekku ci kër gi mu ne ko moom moo toogoon ak yow noonu mu ne déggu ma. <laughs> dégg kay. ne moom moo toogoon ak yow noonu. Uh-huh. mu yéegaat ñëw fekk bunt bi tëju. Uh-huh. taaw fekk ko fi ne ko bismillah ma yónnee ko message ne ko kooku mën nga ko wàcc mu wàcc ko ci bunt mu ne ko lu xew mu ne ko noonu sëriñ bi laa amoon ak moom rendez-vous mu ne ko mais moom nga toogoon nag mu ne ko dama juum parce que dama jàpp ne papam laa waroon a toog ak. Uh-huh. taaw ne ko moom du la gaaw recevoir de. xanaa beneen ñoo deme moom bu xasee tëj bi loolu dafa raad ah. mu dem ci mbokk bi ma boole woon moom ne ko may booleeg moom maanaam nga maa wax ne ma kii xale la hmm. mais man tur yu may dégg hmm. ak li may dégg muy def lépp ak ni mel ci faj hmm. man mag ñooñu nga may wax mais kii judduwul ndeke <laughs> ma ne naa kii xanaa kay daa fekk juddu tey màgg tey la rek ah. waaye yàlla la soob moo tax yooyu sax dafa bëri ñu ci am njuumte jigéen nit matul xeeb yàlla rek moo xam bu fekkee na yow nit ki ci habillement nga koy jugé pour mu sol grand boubou te yooyu li ma ciy daana ci ni kenn xamul mu toll di hmm, jeex ñëw fii ma la mu ne noo waxumaa yow de kenn bëggu lay seet man nag dafa génn mi ñëw jàll ci leneen donc nag ni ma yàlla bindee la ma bindee hmm. bu ma bëggee sol lokos lokos laay sol wax ak yow man ba ma fekkee sama kër lay sol parce que damay sóor na moment bu ne urgence man naa ma war a génn waaye bu ba ma fi nekk xëcc grand boobu irritant am may suumee ko jël temps dama am jot googu noonu moo tax yooyu tamit parfois ñoom ñu bàyyi ko xel rek sànni ma bàyyi ma doxal. jërëjëf jëf yéen téléspectateurs ak téléspectatrices yi ñuy seetaan ci Bantamba TV ak internet yi nga xam ni partout dans le monde ñu ngi ñuy suivre à travers Ken Bougoul TV xanaa rek ma fàttali leen ni doomi borom bàmmeel bi mi ngi ci jamono yi promotion fii ak élection législative yi di jeex ndax seetlu bi moo di. réew mi bu jubé ci élection rek yu ci bari dafa tek tek gogé da fay waral pos yu woyof té bu sa poos woyofé ba nopi nga andak tawat bu ci jappalé amul rek da fay xawa doy war mo waral kenn bu sëriñ Moustapha si ko dan défé nek ci wétu askan wi saa su muy gën diko fédali lolé mo sabab promotion yi lé kon nak gaaw len gaaw woté ci numéro yoy ngeen di sen ndaw ya ngeen di jot ñolay taxawu domi borom bammel bi benn adresse rekk la am muy poste Thiaroye table Tivaouane laataa jëflanteeg yow ci mel ni mbir nag dafay def consultation ba noppi mu wutal ko ay bés nag ak i waxtu mardi mercredi jeudi ak samedi 11h ci suba ba midi waaye yow mu ne fu sori moo xam ci biir réew mi la wala biti réew lu jaaxlee ndax kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy dafay def consultation à distance foo mën ne ci àdduna bi fexeel rek ba jokkoo ki ndawam. ñu wax la yoon wa ngay jaar ba mu defal la consultation ca anam ba mu waré insha allah sëriñ bi day leen cëral ci waxtu jeexna tak donte ni waxtaan wi jeexul waye ñu dog ko rek ba benen ñu yeggal insha allah kon nak ma ñëw ci ala une yëkëti jotaay bi na ca gëna fess bokku na ci njitum réew ma woon di président Macky Sall wax nañu ni dafa démissionné ci poste yi mu fa la ci réewum France ngir mëna taxawaat ci élection législative yi nu jëm yow ban seetlu nga ci am. ah waaye def boppam nit ki wóolu sa bopp ba xam ne li nga liggéey kay am nga ci sañ-sañ su la neexee battre campagne yaakaar naa la woon wane na de xaw ma suur nañ ko mu din yàlla baax na ñëw ak jàmm incha allah ma ne ñëw jàmm bi nga fa nii inshallah sani ma bayina do doon mu ngoog kon nag xanaa nga tàggoog askan wi ba benen bak tay sargal mawlaaya sayyidi sayidi bin mustafa kum am rek yalla ya raw amin wa ma salik ala lay hasisin wa salamun aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sante sama mbokk bu bi ah. bu bëggul bu serigne mustafa wa ndax daf ma wax wax bu doy war moom kenn bëggul mu ne man dama defe ne dafa am ñu ma yéenewul sëriñ safa moo tax ñuy seet jamono bu nekk luñ ma sosale ndax ñu isolé ci sa xadara mu ni ma te tiitar yàlla moo ma boole ak yow mu ni ma te kenn mënu ci dara nag wa mu defoon daw ci gàmmu gi def na ren lu ko ëpp ma bëgg ngeen bàyyil ma fi kenn bëggul bu ngeen xamul ci lu mu nekkit ngeen may ma man ma xam ci lu mu nekk ndax ñemewul teg tànkam fu ma ko waxul walla bu koy def nag day fekk yëguma ko